ministre bi Cheikh Tidiane Dieye. Cheikh Tidiane Dieye def na ko. suq bi la yónni. suq bi la yónni lu tax mu yónni suq bi. amul jot parce que am na lu ñuy nëbb. am na lu ñuy nëbb moom Cheikh Tidiane Dieye. Hmm. moo tax société civile bi jóg taxaw ne dossier bi dafa war a leer. waaw Moussa Diakhaté moom yóbbu na pétition ba fële assemblée nationale pour ubbi. enquête pétition ñi ñëpp ñi ñëpp signé ko Sénégal yëpp signé nañ ko. dina mujj fenn. fenn xam nga lu Sénégal yi dañ ci bàyyi xel moo tax Ousmane Sonko xëy suba dem woo. espèce de musicien yooyu waroon wax ci dossier bi waxu si lan leen ay yéen fi nek ak yéen ma way ak def li ak El malik ak li li di di sóob day sóob. tapet bi day détourné débat bi quoi. day détourner débat bi te si loolu. lañ koy xaar non day pour legui gars yi naan tapet bu mu leen ji. ji nga sens Tange dafa musa daw débat. ok Ousmane musul ñame débat Ousmane man je me rappelle que bi mu ñëwee Genève. Mhm. dafa am affaire bu ma marqué digganteem ak Fat Babo pardon si li may le parce que jour je fi mu à sax Fat Baba moko fay. Fat Baba Fat Baba bi restaurant na ma ma fay bi on servi mu lekk ba pare ben question la Fat Baba pose. C'est le génnee ci mom qu'est-ce que tu penses des femmes sénégalaises Ousmane Sonko xam na la ko tontu problème. jigéenu Sénégal amuñu problème Fat Baba na ko jigéenu Sénégal amuñu problème te yow nga bugg jël réew mi ci la Fat Baba génne ko ma ne ko mais Ousmane 365 jours ay jigéen nekk ci géej 5 kër du matin ñu yenn paanu gën ba 18 heures ci guddi ay wa ay wa jën nga ne jigéenu Sénégal amuñu problème Ousmane jigéen ñi ngay yeewu 5 kër di matin xam naa ne doo jóg fajar ñoom rek ngay gis ci marché bi ñuy dang-dangam ñoo yor economie Sénégal. problème les femmes souffrent au Sénégal sont seen parce que majorité seen seen rek pour Ousmane am fa amul vision c'est pas un visionnaire c'est un politicien sans

mais suma di viser dara di viser dara. di ko saytu di ko. voilà xam lan moo la fa yóbbu. di am stratégie mais nga teg ko ci dëgg. nga teg ko ci dëgg mais Ousmane lan nga mës a gis à part loo xam ne defal na ko njëriñ Sénégalais yi wala mu def ko njëriñ sur la vie des Sénégalais ba muy xeex impôt domaine sax xeex pour am suuf la def xeexul ngir Sénégalais yi. waaw mais xeex na ba ay nit de. waaw moom laa lay wax. parce que parce que parce que parce que parce que doo gisee. xeex na tey ba ñu xam Adji Sarr te kenn xamu ko waaw waaw moom laa lay wax. Adji Sarr mënoon na dund ba dee man du ko xam. xam nga tey yow mais xeex na benn xeex. diggante Cité Góor gi ak Sacré-Cœur ba ñu xam. nañ la ñuy wax un visionnaire Senghor fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko yóbbu. c'est un académicien. ah euh, maître Abdoulaye Wade. c'est un visionnaire c'est un visionnaire. ak lu mu ko mënti waxal. c'est un ingénieur c'est c'est un visionnaire. Mm-hmm. xam-xam boobu la jàng loolu la mën

kon c'est pas boo bokkul ak ñoom Bougane ay ñoom Youssou Ndour ak yii ñuy wax ñooñu dañoo jëriñu réew mi jëriñu woo ñoom réew mi xam nga li mooy différence yi Bougane ak euh, Youssou Ndour ak sonk la ma seen différence ak yéen Tange. ñii ñii ay self made men lañu. wax mais yéen. da ngeen jëriñ Sénégal. Sénégal mais Sénégal jëriñu moom Ousmane Sonko ak Diomaye dañoo jëriñoo Sénégal. Sénégal ça vrai. la ma seen différence. ñun suuf bu ñu am Sénégal dañ koo ñàq. ñëw dugal ci xaalis Sénégal am ko. lu mu dee kër bi ñu fi tabax dañ koo ñàq. tâche lu ñu fi teg ah, dañuy fay location di contribuer di jël ay nit di leen fay. jeex na ñoom mosu ñoo fay kenn ñun ñoo leen di fay ba tey ji. loolu mooy jëriñ Sénégal may leen ay kër mayleen ay fonds commun jox leen ay oto cotiser leen ñu takk ci jabar am ci jabar fay ci seen jàngu doom kon ñun ñooy boori yi. yéen a yéen a jëriñ Sénégal. kon tey Bougane Gueye Dany moo ëpp njëriñ premier ministre. non loolu kenn du ko wax du moroma mais tey gis nga naan ay Bougane kii du sa moroma tolloo leen. feneen naan non non Bougane moo nekkul moroma. waaw Bougane Bougane quand même il a créé des emplois dafa am benn vécu. man Bougane quand même self-made man il a créé des emplois. tey am nañu yaakaar ci moom moo leen di jox salaire mi ngi contribuer ci impôt bi parce que suñu ñu ba koy laaj 2 milliards d' impôt kon Bougane am na lu mu toog xalaat ba liggéey ko moom Diomaye tey kenn du ko laaj deux milliards d'impôts parce que liggéeyul dara Sénégal ba mën a fay deux milliards d'impôts. jeex na Bougane c'est un visionnaire dafa am jaar-jaar. waaw Bougane mënoo ko nier que kër du boroom xam-xam boroom xam-xam la yow mii tey da nga jëriñ Sénégal ti boroom xam-xam nga mais nag duñ demee ba ñu ñàkk xam-xam dañu jiite lii rek mooy dal Sénégal te li li ñu waxoon juróomi at yi ci la Sénégalais yi di dund lu ñu mësul dund juróomi at yi. si lay metti si sénégalais yëpp juróomi at yi si la ñuy gis sénégalais yu gàddaay yu gàddaay génn réew mi daw réew mi si juróomi at yi lay amee parce que ñi ñu dénk réew mi gëmuñu réew mi bëgguñu réew mi dañuy jëriñoo réew mi te du duñu jëriñu réew mi. d'accord.